bu ngeen xëyee ñu ne Ousmane Sonko ak Macky Sall toog waxtaan waxtaanee réew mi jàmm dellusiwaat ba mu leen bett jërë ngeen jëf ginnaaw bi leen nuyoo ziar leen ñëw ak yéen ci analyse bu bés bi mu nekk analyse am solo ci diggante Macky Sall Ousmane Sonko nouvelle bu neex mën na am nag ci patriote yi rawatina ci Ousmane Sonko mi xamante ni mi ngi ci prison bi naa ci joxe ay leeral yu ama am solo dañuy wax képp koo xam te ne abonné ko ci chaîne bi mën nga abonné bés close notification te ngay partagé nga dem ci commentaire yi bin fa sa commentaire nag nga gisee analyse bi Euh, fi ñuy commencé mooy président Macky Sall gis nañ ne woolu na Cheikh ñas toog ak moom waxtaan ak moos gis nañ ne Cheikh Niass bu yàggul dara génnoon na ci plateau am mu wax ne euh, bu amul sens dafay dagg carte d'identité maanaam dootul nekk sénégalais mu nekk koo xamante ne nag ku ne xam nañ am na beneen nationalité. yaagaatul ñu gis ne Cheikh ñas génn na di naqarluwaat li daal seen kaw ba ne bu amul sens dina xëccoo njiitum réew mi du fekkee ñi fi nekk dañoo xaw a yambare. Cheikh Niass moom nag gis nañ ne ginnaaw bi mu waxee lool yàggatul dara jubale nañ ko ak président Macky Sall moom Cheikh Niass euh, toog na ak Macky Sall ñu waxtaan euh, jubo ci kàddu dellowaat na leen seen signal bu ñu jógee ci Cheikh Niass gis na ne it Macky actuellement euh, ci li mu nekk mooy ak jàmm goo xamante ni dafay dellu siwaat fii ci réewam Sénégal ba ci Ousmane Sonko ñu ngi am yaakaar ne président Macky Sall dina fexe gisante ak moom pour ñu def benn dialogue boo xamante ni jàmm dafay dellu siwaat ci réew mi bu baax a baax ndax Ousmane Sonko dina ko d'accord lool mooy problème bi waaye Macky Sall loolu rek la bëgg Ousmane Sonko nag koo xam ne. nekk na koo xamante ne ku diñ la ko am fula ak fayda waaye nag est-ce que nekkul ne jàmm réew mi bu taxawee Ousmane Sonko war na mën a toog ak Macky Sall pour ñu waxtaanee réew mi bu nekk war na ci mën a am xel di ko wax ci commentaire yi ñu continuer ak yéen ñu gis ne Ousmane Sonko mi ngi bëgg a yàgg prison gis na ne nag patriote yi xam te ne dañoo dëggu ci seen ak patriote fàtte woon Ousmane Sonko benn yoon Ousmane Sonko nag xamun ci lu mu nekk parce que dañoo am ci moom ay nouvelles Ousmane Sonko ñu ngi am yaakaar mu génn prison balaa yàgg ci waxtaan goo xamante dinañ ko waxtaanee pour mu mën a génn yàlla na yàlla def ndox mu sedd ci mbir moomu lee jërë ngeen jëf.